monsieur Sène euh, ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay sant. Ousmane directeur WARC West African Research Center euh, may fàttali ne mooy suñu ganu tey monsieur Sène nga doon de des questions américaines ñu woola tey pu waxtaan ci mbiru floy mi nga xam ne mooy euh, prétexte mu doon lu ñuy yàgg gis ca États-Unis afro-américain yi ñu fa faat bëri na tey jii vingt et unième lan moo tax ba tey racisme des foofu ca États-Unis. xam nga ñaari ñaari xew. Mhm. maanaam Floyd nin ko boomee ñu filmer ko muy demandé ne man mënatuma nooyi waa ji di gëna a bës mhm. di gën a bës ba ci fin bi muy oo yaayam yaayam boo xam ne bii teena ñaar wala ñetti at ci ci ci ci ci ci ginnaaw Euh, xam nga naka yi ñu koy wan ne àddina si yépp di ko gis. Mhm. loolu yéeme na te daw na yaram. su ngeen fàttale ko par exemple ku mel ni Rodney King koo xam ne kii aussi amoon na problème ak euh, police bi te nit ku ñuul la woon mhm. ñu jàpp ko ci réewu Los Angeles di ko di ko dóor ay malagulu ñëpp ñu koy filmer ñëpp di ko gis yooyu dafa yéeme lool lool lool lool lool lool nag su ñëwee fekk ne aussi amoon na yoo xam ne ci at mi deux mille vingt deux mille dix neuf deux mille vingt mm. amoon na ay incidents yu bari yoo xam ne yii dañu gis ay ay nit yu ñuul la plupart du temps ay góor ñu jàpp leen rey leen comme li nga xam ne euh, existe na Géorgie mm. que Papa Diek euh, doomam yu tubaab jël xale boo xam ne bii daf doon jóge ñu soupçonné ne xëy na dafa nar def fii ay jéye ñu jël ko fekkeel ko mu dee beneen bi ñu war la benn xale boo xam ne bi ñaar fukki at ñaar rek la am ndeysaan dem bon brûlé benn feu rouge daw kër maamam ñu fekk ko fa ku ci nekk yore sa ngànnaay ci policier yi da nga koy da nga koy menacé yooyu yëpp su fekkee ne am nga ko en l' espace de moins d' un à partir de ce day yëngal ubbi góom yi nga xam ne xëy na pendant longtemps nit ñi ñu ngi koy sooxaale mhm. donc loolu la ñu war a gis ne euh, bon li dafa ubbi rek koom boo xam ne bii Amérique depuis longtemps mu ngi koy xeex te fajagu ko ba léegi te na xëy na xale yi nga xam ne ñoo nekk ci biti di manifester ñu wone ne xëy na fi ne dañ taxaw pour que koom boobu ñu ñu wëral ko à jamais. Euh, États-Unis ñu koy wax dëkk jàmm muy euh, dëkk liberté euh, ndax tey jii mm. boobu les slogans sax. wax nañ ko mën a bàyyi foofu. ah déet su fekkoon ne du doon du doon dëkk liberté kon dans ces conditions duñ mun a am xale yi nekk ci biti ñu def état d'urgence ne à parti de huit heures bëggatuñ kenn ci biti ñu nekk ci biti yi manifester guddi gi yépp ñu manifester mhm. parce que manifester nag mooy li nga xam ne askan wi am nañ ko pour que li nga xam ne seen yelleef la ñu mun ko ñu mun ko sàkket ñu mun ko aar su fekkee ne ngànnaay moom lañ jox soldat yi ngànnaay moom lañ jox policiers yi pour que ñuy aar jàmm ak salaam pour askan wi askan wi amul ngànnaay euh, mais ngànnaayam moom mooy nga génn ci jàmm ak salaam nga manifester wax wala bind wala dox wan nit li ñuy wax daal ñaxtu wan nit ne kontaanoo situation bi ñu nekk bëgguñu ko te il faut ñu changer ko. Hmm. loolu nag gis nañ ko euh, États-Unis gis nañ ko New York rek gis nañ ko New York gis nañ ko Atlanta gis nañ ko Seattle gis nañ ko de Detroit gis nañ ko Chicago gis nañ ko San Francisco Los Angeles dëkk yu magu États-Unis yépp gis nañ ko fa loolu kay ma wone ne xëy na démocratie ak liberté mu ngi dox mais euh, démocratie ak liberté nag su fekkee ne mun da nga ko bëgg a suuxat mm-hmm. il faut que askan wi Euh, pour wane ne li nga xam ne dina sooxe démocratie ñu faj ko pour que démocratie bi gën a mun a am doole parce que démocratie du total. Mhm. démocratie loo xam ne dañ koy xeexal bés bu nekk dañ koy xeex pour que mu gën a jóg. Mhm. fi ne je crois que lii wane na ne li Martin Luther King di doon xeex ci année soixante yi pour ay affaire u droit civique léegi mu ngi continuer te xale yi nekk fi mu ne États-Unis ñu weex sax ak ñu ñuul ak ñu konk ñoom ñëpp mankoon nañ pour ko bugg nañ ko soppi je crois que loolu aussi dina suuxat démocratie ak liberté d'expression ci li ma yaakaar. Ah, tudd nga ay figures yi nga xam ne tey jii euh, référence lañu ci li nga xam ne mooy xeex ségrégation raciale li ci mel ni Martin Luther King ak Malcolm X waaye tey dañoo gën a nemmeeku at yu mujj yi ne euh, xeex bi euh, dañoo dafa mel ni philosophie Malcolm X moom la nit ñi gën a jëfee. non c'est-à-dire que loolu nag suñ ko waxee dafa mel ni kon euh, xam nga manifestation guleet ñu gis ay violence nekk ci manifestation su fekkee ne nit ñu baree bare comme ni ñu ko gisee actuellement ci États-Unis ñu ngi génn di manifester policier nekk seen kanam mais à partir de ce li ñuy wax violence rek ay xeex yu mel noonu ak ay jàmbarloo mun a ñàkk pour ñaar parce que xale yi nekk ci biti ay waxtu waxtu waxtu añuñu reeruñu lekkuñu defuñu dara hmm. policiers yi aussi énervé loolu sax mun na am farñeent bëgg jafal quelque part ba pare mu am ay bomante hmm. loolu un la mais manifestation aussi gis nga groupe yi nga xam ne ay rek lañ soxla mooy groupe yi nga xam ne dañ lañu la ñuy wax groupe organisé mm-hmm. dañuy mbubboo manifestation yi pour que jëyee yiñ bëgg ñu làqu ci pare def ko te ay États-Unis identifié nañ déjà ñaari groupe organisé mm-hmm. benn bi buggaloo la tudd buggaloo nag moom daa euh, turu benn fecc la woon bu amoon euh, ci euh, jamono yu passé mm-hmm. ñoom dañu doon ñoo xam ne ñi dañ organisé wu mais ñu ngi ne daal ñu ngi gën a jege dañuy wax extrême droite blanche c'est-à-dire blanc yi nga tubaab yi nga xam ne te dañuy préconiser euh, la suprématie blanche ñooñu lañ gën a jege beneen groupe bi ñu ngi koy tuddee groupe bu antifa antifa mooy antifasciste ñooñu nag ñu ne euh, groupe d'extrême euh, gauche la et soo seetee Donald Trump d'ailleurs pour moom dafay ne groupe yooyu ñoom ñoo yàq alors que ñeneen comme Biden dañuy ne bon bugalu yi ñoom ñooy ñoom ñooy yàq mm-hmm. donc ñooñu mun nañ infiltrer soxlawul ñu ñu bare su muñ nañ doon ñaar ñett sol seen kagul wala sol seen masque dem rek sànni dara ci benn magasin taal ko taal ko wala def groupe ba pare dugg ci benn magasin sàcc fa dem seen yoon mais soo seetee euh, mbir mi dellu si na ci normal euh, rajo ak télévision américaine yëpp su fekkee ne jàpp nga leen hmm. dañ lay wax ne fi ne li ñuy gis mooy manifestation yoo xam ne yi jàmm la et li nga xam ne mooy yàq euh, mu ngi gën a wàññeeku donc li nga xam ne peut-être manifestation yi ak manifestation yi manifestation yi loolu lañ bëggoon ci njëlbeen ga mhm. mooy nañ ko def ak ci jàmm ak salaam nañ ko def te duñ tooñ kenn duñ yàq dara je crois que loolu mu ngi dellu si mais loolu nag su fekkee dellu si na mu ngi euh, jafandu ci li nga xam ne Martin Luther King moo ko mus a wax. Mhm. non violence nañ génn ñaxtu wane ne kontaanuñu te du ñu kontaan tant que joxuñu suñu yelleef mais nag nañ ko def ci jàmm ak salaam buñ tooñ kenn. Mhm. par contre euh, euh, Malcolm X soo ko fàttale ko am na benn phrase boo xam ne bii moo ko waxoon moo ko waxoon by all means necessary mhm. par tous les moyens. jumtukaay boo xam ne bii soxla nañ ko amul benn exception war nañ ko mën a jëfandikoo ba dem ba ci ay ngànnaay mais loolu nag euh, ñiy manifester ñu ngi koy wàññi te soo seetee aussi feneen gis nga policiers yëpp ñoom ñu ngi sukk ci kanam manifestation manifestant yi xanaa kon même policiers yi nga xam ne yor nañ gànnaay bugguñu ko utiliser pour le moment ci liñ gis en tout cas seen attitude sukk nañ ci kanam manifestant yi di leen woon ne comprendre nañ li ñuy def bugguñu utiliser suñ gànnaay xëy na nañ manifester ñu encadrer leen rek après ñu dem mais bugguñ jàmmaarloog ñoom su fekkee ne fi mu ne ci euh, bii ci liñ gis. Mm. ba ay trois heures quatre heures du matin. Mm-hmm. ak liñ gis tey ci suba su fekkee ne loolu moo nekk pratiquement États-Unis mun nañ ne xëy na li doon Martin Luther King di wax ne nañ ñaxtu ci jàmm mais nañ ñaxtu tant que li nga xam ne soxla nañ ko joxuñ ñu ko loolu xëy na moo gën a am dëgg États-Unis que bu Martin que bu Malcolm dëgg la euh, manifestation pacifique yi bëri na mais yi nga xam ne euh, moo am violence tamit bëri na ndax mën nañ jàpp ne discours euh, Donald Trump am na lu mu waral ci mbir moom ba dana yëkkateeku. waaw manifestation yi bëri kii bi mais confrontation yi ak ak xeex bi ak violence bi mu ngi wàññeeku. Mhm. ñaari fan yi soo observé bu njëkk ci début bi. Mhm. amoon ay affaires yu garaaw yu ñu wone mais fi ne li xew démb li xew biig ak li nar xew peut tey soo ko xoolee peut-être que pacifique bi moo gën a am importance que jommarloo bi. Mhm. c'est-à-dire aussi Donald Trump attitude am ni mu woo dafa mel ni koo xam ne kii daal dina ne nañ xeex ba ba jeex loolu nag moom je crois que américain yu bari ñaawlu nañ ko euh, am na am na ay ay ay jéego yoo xam ne yii euh, dox na ko wala ay wax yoo xam ne yii wax na ko yoo xam ne yii xëy na koo xam ne kii li nga soxla booy affaire bi dellu ci jàmm xëy na soo xalaatee doo ko wax parce que su fekkee ne jël na kàddu yi koo xam ne kii dans les soixante. Hmm. ay mille neuf cent soixante sept yooyu. Hmm. am na koo xam ne kii moom daal. Ah, der bu weex moom la gën a ne na taxaw ci kaw ñu ci def nekk ci suuf kooku ne su fekkee ne gars yi ñu ngi manifester di toj di sàcc à partir de ce moment yi war nañ la dégg wa bal bal war nañ ko dégg loolu nag moom 67 lañ ko waxoon xam nga 67 ci droit civique yi jëlaat na ko dañ ko laaj sax journaliste yi mu ne man daal jël naa kàddu yi mais xaw woon ku ko wax. <laughs> mais nag kii loo xam nañ exactement ki ko wax mu jëlaat ko ku kooku dafa doy waar. ba mu demee aussi ñu xelmate ne am na benn loi boo xam ne bi yàgg na ci euh, législation américaine boo xam ne bi mos nañ ko wote mais mais ràññee fàttaleku wuñ président bu ko jël mooy loi ci insurrection maanaam su fekkee ne askan wi dem na ci euh, mbedd bi mhm. ba nga xam ne mu ngi jëm euh, jéggi dayo kon à de ce président bi am na droit ne damay def ci acte insurrection acte acte ay loi contre l'insurrection boo xam ne bi dix huit cent quatre kooku euh, xam nga euh, dix neuvième siècle la hmm. mu ne ko jël ba pare pour xeex leen kooku nag moom euh, amul benn président boo xam ne bii ràññee nañ ba mu ko jëlee ba pare pour xeex peuple américain bi moom wax na loi boobu donc loolu du lu rafet hmm. ba mu waxee ne aussi garde nationale dina leen indi pour xeex xale yi hmm. ah garde national boobu c' est très compliqué parce que tout président américain moo am coobare. Mhm. pour activer garde national kooku gouverneur yi ñoo ko mun a def. te am na ay yoo xam ne contacté na leen. Mhm. nee leen jël leen garde nationale indi leen Washington pour que ñu aar Washington. Mhm. gouverneur dañ ko ne président ñun loolu duñ ko def ñun am nañ déjà problème ci suñu état bi euh, ku ku mel ni gouverneur euh, euh, Cuomo bu New York dafa ne ko man am naa déjà ay manifestations yu bari fii ci état New York ma jël suma garde nationale di la ko indi. am na yeneen gouverneur aussi yu ko wax la même chose. la même chose ndax li waaw armée bi nag moom waxi noppi parce que armée bi tout euh, li ñuy dégg mooy même ñi nga xam ne ñu ngi ci biir l'armée bi dañ ne. Mm-hmm. noonu armée américaine du askanu Amérique noonu Amérique. amee armée américaine mooy noonu askanu Amérique donc du ñu jël suñu ngànnaay di ko utiliser contre peuple bi nga xam ne dañ ko war a défendre. Mhm. donc yooyu yëpp soo ko boolee dafa mel ni discours Donald Trump même ñi nga xam ne ñoo bokk ci parti républicain ànd ak moom ñu ngi koy défendre vaste majorité ñi nga xam ne yore nañ doole wala ñu ngi wax ànduñu ak moom. ndax épisode yi mën na am njeexital ci lendemain politique am moom mii di Donald Trump. ah déet ça xëy na ba xam nga élection yi nag c'est mois ñeent ñetti weer moom lu bari xëj na fi. Mhm. est que ñi nga xam ne ñoo nekk euh, ci euh, euh, extrême droite bi duñ ni affaire yaa ngi jolli. te ki te ki nga xam ne moo ñu ci mën a dimbali mooy Donald Trump. Mhm. est-ce que aussi du am ñeneen ñoo xam ne ñu nee nañu suñ jógee ci lii Covid sonal nañu fi mu ne dañu ndóol liggéeyatuñu amatuñ dara ki nga xam ne moom mun a euh, dekkil économie mooy Donald Trump est-ce que du am yooyu réaction mm-hmm. wala mu am yeneen réaction yoo xam ne nee nañu est-ce que Donald Trump su fi yàggee ñu joxaat ko ñeneen ñeenti at du ñu indil musiba bu passé musiba bii ñu am ñaari lecture yooyu yëpp mun nañ ko def waaye fii ñeenti weer situation bi dina gën a leer pour que ñu xam foo xam ne fii nag ah élection yi mun nañ fa jëmee mais ma fàttali na élection daal mhm. comme dafa mel ni comme euh, comme làmb la xam nga dañ ne làmb reenu ñàmbi la fi muy demee kenn mënu koo xam. donc daal élection yi reenu ñaam bi la waaye xëy na na na damm daal fi nga xam ne moo gën ci Amérique. kenn ci euh, reste du monde parce que Amérique ak suñuy dëkk dañu dañu yàgg dañu bari loo xam ne li ñu ngi koy jëfalante te nga xam ne ñëpp gis nañ seen bopp. Mm-hmm. professeur rapidement wax ci leneen euh, tey jii euh, noir américain yi donc mën nañu wax ne 14 pour cent lañ ci population Amérique. gis nañ ne tamit Covid 19 bi ñoom la gën a sonal. lan moo waral lan moo war a expliquer loolu. waaw gis nga feebar su ñëwee. Mm-hmm. ñi nga xam ne ñoo gën a néew doole. ñi nga xam ne ñoo gën a ndóol parce que soo ndóolee sa lekk du baax. Mhm. waaye soo ndoolee aussi dem dispensaire ñu lay jox ordonnance te nga xam ne santé Amérique c'est pas gratuit. Mhm. pour que nga am santé il faut nga am assurance maladie. Mhm. su fekkee ne yow ñemewoo sax juux jege hôpital pour ñu faj la su fekkee ne yow li ngay lekk du dimbale sa yaram wi pour que nga mun a xeex euh, euh, jàngaro. parce que sa yaram wi plus muy am doole ngay xeex jàngaro su fekkee ne yow lekk gi ngay lekk mooy yu mel ni fast food dina dugal ay éléments yoo xam ne yi day favoriser lu mel ni tension wala lu mel ni diabète su fekkee ne yow yow ci askan woowu nga bokk ñi nga mm-hmm. xam ne ñoo gën a ndóol kon à partir suma feebar suñu yow lay gën a gaaw a boom covid 19 ci askan woowu ak ci hispanique yi la gën soxor parce que tout simplement seen condition économique seen condition sociale ak fi ñuy dëkk xëy na ceeb ba waroon a am amu fa mhm. loolu yëpp ci ñàkk doole loolu moo tax xëy na noir yi ñoo gën a coono ak hispanique yi ñoom la covid 19 gën a yàpp te moom ñoom lay gën a rey ci Amérique professeur merci beaucoup ñoo ko bokk may fàttali ne Ousmane la directeur WARC moom lañ doon dalal tey